man Moustapha sa mii di wax ak yéen bu ma mënee def jotaay bi fii sëñ Bassa ngi nii këram waa kër Seydou Khadir yi ñu démb ñu def ko Gédé kër sëñ Mbacke Bousso barki démb kon am na lu xew nañ yeew te bàyyi li suñ bopp bi ñuy tardeel réew mi ki fi nekk def na fi lu rëy rëy doo dégg kenn di ko attaqué di wax bilaa autoroute Ila Touba mi ngi fi dem léegi Dakar ñëwaat Touba moo ko waral bi yi nga xam mi ngi jóge garage su Dakar bii dem Ndindi dem Daral màggal Touba boo daan dem Daral daanaka balaa nga ñëw say gan dañ la namm duñ la gis léegi da dem léegi ñëw léegi Macky Sall la ko fi def. hôpital niveau 3 bii ci yoon Darou Mouti ma ngay foog seen ma ngay faj gox bi yëpp mën na leen a jël Macky Sall moo ko fi def corniche bii di 30 bii. àgg na daanaka balaa magal Touba lamp yi dana tàkk oto ci ci jaar Macky Sall moo ko fi def assainissement bii bi Abdoulaye Wade door a toog ñaari étage la ko jëlee indi ko ba ci jumaa ji yóbbu ko guy mbind yóbbu ko kër ñang jëlee ko fi yóbbu ko ba Daaru Rahman mbasee ba fa Abdoulaye Wade defoon mbasee bi nga xam ne mooy garde ndox mu foofu daa demaat defaat beneen mbasee bu mag ca ginnaawam kooku ku naan defut Touba xamoo li ngay wax sa mii Magal feet moo ko dugal assemblée ba mu am kooku kon ñi naan liste góor jugaan jigéen góor jigéen maa ngi suñ doom yëpp xamal nañ leen lan mooy góor jigéen te publicité boobu ñuy def góor jigéen daa am xaalis bi leen ciy jox moom la ñuy campagne seen oto yi rafet yi xam nga amuñ xaalis ñu ko liggéeyee xaalis yi góor jigéen ñi ñuy publicité góor jigéen ñi muy Cheikh Abdou Bara Doli ci tur bi laay jaar kàddam yi ñaaw yi nga xam waxtu wu ne maa ngi entreprise mun Muntaxa loolu ab taaliba du ko wax taaliba day diglu ndigal jëfe ndigal loolu lañ xam kon ñun waa Touba nañ leen nañ leen gedd te fal doom yu baax yii nga xam ne waxtu ñu xëyee gis leen buñ gontee gis leen kon nag ma daane la ci jigéen ñi da ma may de maa woote ñi wuyu si ma damay wax may soxla may le ma tuuti booba la ngi leen di xaar bàyyi seen taal yi yi bàyyi seen lépp di leen xaar kon damay wax liñ ma li ñuy bënt ci yéen soxna yi nag seen kàddu mooy sëriñ bi sëñ Abdou yow tàmbali nga gis naa nga yóbbu ay tiwo sàmmil nañ Abdoulaye sa dagg tiwo yi ndox yi mi ngi koy yóbbu ci àll bi daaw at yëpp sax ñun ñu ngi koy liggéey liggéey boobu waaye dëkk bi ci seen bopp ñoo neexut a dimbali waaye nag fii mu ne war a neex dimbali te di wooteel carte maro bii bii da koy lem bam jekk def ko ci enveloppe bi sëriñ Gass Kaltoum mii toog moo nekk ci bopp bi Mouhamed Cissé mii nga xam ne Serigne Saliou moo ko yar mi ngi ci biir Cheikh Bara Gueye maire Daaru Nahim ki dem la lañ doon ubbi jumaa joo xam ne loxoom bu doontoon loxoom du àgg kooku koy def ci diine nga naan liste góor jigéen xamoo li ngay wax. Mariama Diallo Mariama Diallo yéen jigéen ci Mariama Diallo mii ci Touba rek jar na ñu woote list bi 100 pour cent ñii ay waxi kese lañ tey dañuy fenn na ma yàlla jéggal barki dem dañ noon système bi baaxut tey ñu ànd ak bi Moussa Diop mi nga xam ne moo Barthélémy Dias dañoo amoon ay jafe-jafe ci xaalis ba Ousmane Sonko moo dem jubóole leen indi leen ci boppam buñ demee di def seen i liste yi amaguñ xaalis amaguñ dara bopp yi leen toj ci lañ tàggaloo waaw léegi koo xam da ngay laaj di defar aw kayit am jafe-jafe kooku buñ leen dugalee ci assemblée bi nan lay assemblée bi mel. lay sañ war ma moo ñu jàppale liste bi jàll li may wax damaa ñor da nga ma may de dinaa àggale incha allah nañ ci jàpp jigéen ñi yéen laa ci gën yaakaar nañ ci jàpp. ku ngeen woo ko wotal mu am mu gañe jërëjëf. yëkkati ziar bu tedd ci sama tur ak tur ñii ma àndal ndax ñii li ñuy wax ak li ñuy dox ak li may wax benn la nii lañ koy doxale ku nekk da am fooy jaar léeg-léeg ñu bokk daje tënkandoo dara wax dem feneen kon bi Mouhamed waxee rek mel na ne man dugg naa ci kàddu gi du dolli lu rafet rek la ak. joxe sunu ziar ci Serigne Cheikh Abdou Serigne Cheikh Bass Abdou Khadir sunu wayjur sunu xarit waaye di xaritu président république di joxe ziar ci am Amdi Moustapha Omar Bousso mi nga xam ne ci quartier bi mu dëkk la ñu nekk. comme ni ko Mohamed waxee ak ñi fi jot a jaar Cheikh Abdou Lahad ñu ngi lay sant bu baax ci taxawaay bi yow sa engagement ci wetu président de la république xam nañ ci dara ndax bari na luñ ci fekkee démb tey soog a ñëw comme ñi ko ñëpp waxee rek. Sénégal bi mu nekkee senegal ak léegi bii mooy fukkeel yoon ak ñeent ñu taxawal assemblée nationale di ko waajal tax nañu ñuy jóg di dugg ci nit ñi gannaaw bi nga xamante ni président jël na yitteem def ko ci investiture yi jël waa Touba xalaat leen ci muy list boo xamante ni niñ koy waxee lépp lu ñuy indi mi ngi dajane ci biir diine jaa ngi ci jeunesse baa ngi ci monde rural baa ngi ci. lu wàllu muy faju ci mbirum docteur mi ngi ci biir wàllu jeunesse féminine lépp daje na ci biir kon yéen seen njaboot ñoo jóg ngir taxawu président ci ay yitteem ci biir dëkk bi ak fuy biti dëkk bi niñ ko waxee ay réalisation ci biir dëkk bi dama koy faral di wax li fi président Senghor def Abdou Diouf def ko fi Abdoulaye Wade def ko à nos jours boo xoolee li fi ab li fi Macky Sall def mooy nday di bàyyi jëfi ñooñu jàll ci lu wér te ku ko xool da nga ko gis ki ko bëgg ni ko ñëpp waxee lii képp koo xamante ni am nga yéene pour dëggal investiture bi président def ci département de Mbacké mais def ko au niveau national liste bii ngay kayit bii ngay ji bi incha allah bu le 31 juillet def ko ci enveloppe te bañ ko kole voté ko boo ko defee da nga taxawul liggéey bu ñu tàmbali ci Touba mu àgg mais da nga taxawu lu ñu bëgg a tàmbali ci Touba ëllëg ba mën koo def mu mat ni mu mën a matee te loolu mooy yéene président Macky Sall te sëriñ bi xam na ko kon ñi ngi ñaanal ñëpp ñu nekk ci mbooloo mi li ñuy dox yal na ci suñu borom def sutura may ñu ndam au 31 di di 31 euh, juillet sëriñ Moustapha Bousso ñi ngi lay sant bu baax sa taxawaay ñi fi tekk ñëpp xam nañ ko ni ko Cheikh Abdou Lahad waxee zone bi nga nekk kilifa lañ la def def la sëriñ yow it nga def leen ay rak di leen jàppale suba ak ngoon guddi ak bëccëg ñi ngi dalale seen xel ñoom ci nekk gi nga nekk seen biir ak taxaw yi ngi taxaw di leen ñaanal ñëpp suñu borom yàlla na ñu defal tawfeex defal ñu sutura wasalaamaaleykum wa rahmatullah